salaamaaleykum maa ngi siyaar ñëpp di am kàddu yu leer yu may leeral maam Mor Mbaye yoonu géej gi damaa dem ci Ousmane Sonko coow li bari ma bëgg leen xamal la mu fa yóbbu ndax dégg naa ci lu nekk dégg naa ci internet bi nit ñi bind. jóge na ci Idrissa Seck ma nga ca ma nga ca Ousmane Sonko lu ne dégg na ko mais loolu dama koy sant yàlla ndax man maa siiw ma toll foofu ma leen di xamal ne Ousmane Sonko du fa dem ca moom nga bokk Serigne Abdou Mbacke Mbaye Cheikh Khady daayira bi nga xamante ne nii daanaka buñ dajee weeru jot man la ñuy waxloo Serigne Abdou fu fekk jox ma kàddu bu birki démb bi sëñ Muudu Kara Mbàkke di gane ji sëñ Gana Messere nu ànd ñu yendu fa fuñ ma fekk ne ma kàddu yi yow yaa ko yor suñ abdu moomu la Sonko di ñëw ci moom mu ñu xamante man ak moom waaye du savé que ni man damaa jóge ci Idrissa Seck dem ci Ousmane Sonko loolu ñuy def affaire yu diabolisé yooyu ak yàq der yooyu nekk ci réseaux sociaux yi parce que réseaux sociaux yi seetlu naa ñi ciy nekk di wax ñëpp ay ragal ay tàppet lan parce que Mame Mor Mbaye mën nga làqatu ci réseaux sociaux di commentaire ci moom wax ci moom lu ñaaw mais ku jàkkaarloog moom leneen ngay wax loolu xam naa parce que sama këriñ gi fii te nëbbatuwuma dawuma daayuma su ma doon dem parti Pastef tamit du ma tàggu kenn parce que man kenn moomuma ginaaru kenn nenu ma sa Seck ma ma àndaloon démb moom laa àndal tey wanuma lu tax ma ba ko ndax gisuma ko ci moom yii ñuy jéem a def nag di jéem a si nit ñi di jéem yàq seeni xel man rek maa fa dem ay sëriñi daaraa nga fa woon ay ONG nga fa woon ay sëti sëñ Tuuba fekk naa leen fa ñeneen fekk naa leen fa jullit bu am problème la ay nit dem fa di ko di ko di ko masaw ab sëñ Abdou Mbacke Baye Cheikh Hadi bu nu fa demee sëñ du ma fekk ko fa tey jii bu ma sëñ Abdou ne woon fekkaat ma béréb sàngam ma fekkaat ko fa parce que sama kilifa la sama sëriñ la sama lépp la sama bàyyi la sama lépp la ni ko ni ko yeneen kilifa yi doone noonu la ko doone ci man hmm? am na ku ma dégg mu naan parce que sama photo lañ def tuddul sama tur nag moom mag la moo xam ne xëy na am na leneen lu ko waroon mais moom day topp Maam Mor Mbaye rek wala mu topp nit ñi la ma waxoon ci ay kon ne la moo ko metti moo tax mu bëgg koo faje fii mais du fajoo parce que dafa ne Sonko Ousmane Sonko na ngeen na nga moytu ñi nga xam ne fu tooy ñu dal fan moo tooy. man président Idrissa Seck ba may ànd ak moom amul benn poste bu mu occupé amul poste bu mu occupé Sonko bi ma fa demee bërki démb néew ma damaa bokk parti Pastef kenn déggul ma ne ko damaa bokk ci yow hmm? am naa droit nag am ay xarit yu nekk biir Pastef am naa ci ay xarit may jokkoo ak ñoom noonu laa amee ay xarit biir APR la ma waxoon ci président Macky Sall ba tax na nit ñi di ci di jéem a wax man maa ci tontuwul rek parce que duma fekk ñëpp di wax ci benn affaire ma ciy tontu mais na ma waxoon man maa ko wax li ñuy bañ mooy cest à Sénégal li ñu bëgg man xam naa ko ku nit di ko xas te président Macky Sall ñun suñuy kilifa dañ ko war wormaal pourquoi man may jël kàddu gu ñaaw di ko teg ci duma ma ko def te ñi koy def ñëpp ay ragal lan amuñu ci droit waruñu ko xas bu liggéeyee dañoo war ne liggéey na. pont yii mu defar ñu ciy jaar ñun ñoo ciy aw bu paree da ko fi bàyyi Sénégal la koy bàyyeel nanu bàyyi nit ñi ku ànd ak nit rek loo wax ci moom rek ñu ne du rafet loolu baaxul loolu rafetul loolu du Sénégal loolu du réew mi nañ bàyyi yooyu et puis ñiy wax naan fu tooy mu dal fan moo tooy fan moo tooy bërëb boo xamante ne boo fa demoon tey sax yow yaay dindi sa alal defe fa foofu moo tooy fan moo tooy aw man man kese man maa fa dem. ñaata ñaata nit laa fa fekk kër ga fees ay ñaata nit laa àndal ñaata fa jël kàddu mais nag loolu santewaat naa ko yàlla parce que man bu benn affaire amee dañuy ñëw ne maam moor naa nga maam moor naa mais yéen a ngi xam dama leen di wax ne leen maam moor mbaay du ragal maam moor mbaay du dof maam moor mbaay du ko xamul li muy def ñii di wax ñépp ay naa fekk leen transhumé naag def naa lii ak def naa laa kan moo ma mën a waatal ne ci fii laa bokk te waxuma la ko man sa sekk ma ma àndaloon démb na mu wëree woon réew mi démb bu jugaatoon tey wëraat réew mi dara daraje Cheikh Ahmad Bamba ma àndaat ak moom na ma àndee ak moom la ma koy lay tax mu bàyyi ma bàyyi ko moom moo ma koy def wala mooy ma bama te du ko def nañ bàyyi seen yii ñuy def affaire naafiq yi nekk ci télé yeeg rajo yeeg nekk ci làqatu ci ay réseaux sociaux di wax nit ki naka sudut noonu sama numéro ku ko bëgg am ku ku ku ñeme kay woo ma sa téléphone ne ma Mame Mor Mbaye nangam ba xam lan nga lan nga ciy jëlee ah? kenn du wax ci nit lu rafet kenn du dem ci nit mais ban Sénégal lañ nekk da ngay tëju sa kër léegi da ngay gis sa kilifa gu ne man de bëgg naa dem béréb sàngam waaye après la nga ciy dégg nangam na lan lan mooy loolu man fu ma neex laay dem. fu ku neex laay seeti citoyen la sénégalais la citoyen la fu ma neex laay dem ak murit la sëñ Tuubaa daal laa du bàyyi wasalaam mu di wax dama lay ñaan rek ndax yaakaar naa ni yaa ñu mag fuuf bu ma sañoon nga gën a concentré wu ci kurus te bàyyi réseaux sociaux réseaux sociaux nga bàyyi ko xale yi te xale yi nga conseillé leen ñu ciy wax loo xam ne day defar soo amee loo di conseiller nga conseiller leen loo xamante ne day defar réew mi mais du loo xamante ne day day yàq ah mais fekk nit tout ça su nekk ngay ŋàññi nit di def ay ŋàññi ŋàññi ŋàññi ŋàññi loolu baaxul ci mag mu toll ni yow loolu rafetul rafetul waaw rafetul sax barke Serigne Touba Mbacké rafetul voilà bu ma doon dem nag fu tooy bu doon fu tooy lay dal parti biir réew mi ci laa jëm fa la ministre ne fa la député yi ëpp nekk fa la les directeurs de société foofu lañ nekk foofa laay dem foofoo tooy man bi may bàyyi foofu di ñëw di soutenir président sa Seck boobu trois ministres yoo xamante ne ñu ngi ci gouvernement bi weer wu jot ñu ne ma kaay li ngay communiqué ci Serigne Touba daf ñoo neex ba am lii sa lii lii ñun ñoo la ko jox barke Cheikh Ahmadou Bamba dugal ma ci seen biir ministère ñetti ministre noonu lañ doon def ma ne ko fa ñukk foofoo tooyoon. kon baat bi nga wax dama bëgg nga dugalaat ko fa nga ko génne woon na ko fa dugalaat lekk ko yow parce que sa jikko nga bëgg a jox nit ñi te loolu kenn du ko jël yow yaa koy moom nit nag waxul na mu jëf waxul na mu mel na mu jëf rek la mel la wax te yow am na leneen lu la war lu nekk ci ay réseaux sociaux kooku man maa ngi la koy conseillé quoi d'une part demal nga jaami ji yàlla man maam Mor Baye maa la ko wax j'ai rien peur aw ma lu may ragal aw ma lu may tiit yaa ngi wax a góor gu am fit barke Cheikh Ahmadou Bamba waaw foofoo tooy foofu ma doon defa te bu fa doon dem du ma tàggu kenn barke Serigne Touba su ma doon dem ne président Macky Sall may ñëw ci yow kan laay tàggu est-ce que parti Burkina bi la est-ce que dafa doon parti boo xamante ne c'est des Ivoiriens wala leneen ay Sénégalais lan yor réew mi mais man maay seet li ma neex ma def ko man la concerné maa ngi ci Idrissa Seck démb maa ngi ci tey. du ko dem ci sunk rek dem ne ko massa nangam nangam ah ne ko sëñ Abdou mi nangam ak nangam wax ci sëñ Abdou Mbaye Cheikh Khady ñu ne Maam Mor Mbaye dem ñu ci Sonko maa fa dem